bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala hada al amin sayiduna wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahaabatihi ajmain wa radiya allahu an barzaaqi almaxtuum alxayb taaju alaarifiin wa imaamu alawliyaai sayiduna wa mawlana cheikh ahmad ibnu muhammad atijaani sharif radiya allahu taala anhu asalaamualeykum ñi ngi dellu si waat di ziyaara mbokk yu tedd yépp te di leen ndokkeel ci waxtu bu tedd bi di waxtu aljumaa waaye aussi dellu si di sant yàlla moom mi nga xam ni zaman bu nekk dina ci tànnal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bërëb boo xam ni walla waxtu woo xam ni danañ fa mën a dem di jëriñu ci wàllu yiw moo tax mu ni yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya li salaati min yowmi aljumaa fasaw ila dikri llahi wa daru lbaya dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun su ko defee loolu boo defee analyse da ngay gis ni dafay bokk ci li mu jagleel moom borom bi xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu wax leen ni bu ngeen di wut yiw ci bésu aljuma suñu demee ba woote te mooy lanoo tuddee nodd nee na na ngeen xam ni lu ngeen nekk rek di ci bay seen waar pour wut yiw demoon wuy ji woote bi mooy ëpp loolu yiw looloo indi sabab bi ñu wax ni ci bésu aljuma ñu ni loo mënta nekk su waxtu julli jotee boo déggee woote yàlla bi ne ñu su fekkente ni yiw rekk moo la tax a jóg nga wuy ji mooy doon safarat su ko defee it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yabalee dafa am lu mu incarné moom waaye li mu incarné it bi mu ñëwee dafa am lu mu jàngale li mu incarné mooy li ko yàlla tànn wax ko ni ko yërmande gi jaam yi di xaar yépp ci sa dënn la nekk soo ñëwee yaa koy tasaare pour nit ñi xam fa ñuy teg seen tànk yaa koy wane ci jëf pour nit ñi topp sa gannaaw roy la pour mën a jot ci sama yërmande ba tax mu ni ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin maanaam yàlla dafa ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon te ni du woon pour yërëm xeet wi rek kon yow duma la yabal waaw yàlla loolu la wax yonent bi dafa ni ko su fekkoon décidé wu ma yërëm mbindeef yi kon yow duma la yabal waaw boo gisee ma yabal la yabaluma la lu dul ngir nga doon yërmande ci xeet bi waaw wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin su ko defee it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee base solide bi nga xam ni moom la tëral wax ni société musulmane bi mooy pilier bi nga xam ni ca la ñuy jafandu pour mën a dox ba ba ñuy dajeeg seen borom base solide bi nee na mooy fexe préserver sa iman waaw préserver sa iman waaw xam nga Cheikh dafa mës a rëdd ñetti rëdd ci suuf benn rëdd bi mu rëdd ni bii mooy rëddu islaam rëdd beneen ñaareelu rëdd ni bi mooy rëddu ixsaan rëdd beneen rëdd ni bi mooy rëddu imaan waaw ñëpp a ngi toog di ko xool ndax dafa doon jàngale waaw mu jékki saa daal di effacé benn rëddu bi mu tuddee ixsaan ni ñaata ngeen dese ñu ni ñaari rëdd mu jëkki saa effacé beneen rëdd bu nu tuddee islam ni ñaata ngeen dese ñu ni benn rëdd mu delloo si waat ñaari rëdd yi mu effacé woon ba noppi ni am na boo xam ni moom su ma ko faree jarul may far yeneen yi effacé na rëddu ixsaan ni ñaata ngeen dese ñu ni ñi ngeeg ñaari rëdd benn bi mooy islam benn bi mooy iman mu jékki saa effacé beneen rëdd ba mu tuddee woon islam ni bu ngeen dese ñu ni dese nañu benn rëdd ci suuf ba léegi mooy bi nga tuddee iman mu indiwaat ñaari rëdd yi ni déglu leen ma may effacé nag benn bi nga xam ni su dañee yëpp dañ na ñu ni ko ban mu effacé rëddu iman waaw ba rëddu iman effacé ko ca la jóg dem ni jaratul effacé leneen ndax yeneen yi amatul sens waaw parce que boobu la mu doon bëgg jàngale mooy imaan bi su dañee islam nekkatu fa ixsaan nekkatu waaw moo tax préserver ko di farata imaan mooy la ñu tuddee la foi waaw la foi mooy ngëm ngëm yàlla waaw gis nga ngëm yàlla bu dañee boo tuddee sa bopp ni ci islam nga bokk islam nekku fa ndax islam base solide bi nga xam ni mooy tax ñu mën la reconnaître comme un vrai croyant mooy iman li ci des muy ixsaan nga xam ni mooy tax sa diggante ak say moroomub jullit ngeen di demalante ngeen di rafetal loolu aussi su ca iman nekkul boo demee fa ngay rafetal yi doo fa jële yiw waaw moo tax sens bi nekk ci iman lu rëy la waaw sens bi nekk ci iman lu rëy la waaw moo tax mu ni iman dañ koy préserver mu ni iman nag lu tax ñu koy préserver nee na dafa bokk gis nga yàlla yàlla domaine am moom du domaine u mbindeef moo tax yàlla soo ko analyser ci cadre uluhiyaatam nga laaj ko lan mooy sa repère lan mooy sa repère nga analyser yàlla ci cadre uluhiyaatam mooy cadre bi mu doonee yàlla moom nga laaj yàlla ni ko lan mooy sa repère soo ko laajee boo doon xarit tamit keroog la lay destituer waaw ndax laaj yàlla lan mooy sa repère nee na dafay dellu si ci nga ci di wane ni yow da nga xeeb nguuram waaw ndax moom soxlawul repère. moo tax nitu yàlla yi ko interroger moom borom bi wax ka ni dañu dégg mu wax ni wa shamsi wa duhaaha dañoo dégg mu wax wa duhaa dañoo dégg mu wax wal asri dañoo dégg mu wax laa uqsimu bi yawmal qiyaamati ñu ni ko te moom soxlawul repère ba pare ñu ni baatu alquran yooyu suñ koy dégg ñoom lu ñuy jàpp mooy ni borom bi dafay giñ maanaam wa shamsi wa duhaaha ñu ni dafa mel ni kuy giñ ci jant bi waaw ak na mu ko defaree waaw waaye borom bi tontu leen ni leen moom comme soxlawul repère du giñ ci mbindeef bu mu bind ci xam-xam bi mu ko bindee lay giñ te xam-xam bi mu ko bindee soo delloo da ngay fekk ni moom borom bi la kon day dellu ci cadre ni du soxla repère te gis nga li doy waar ci loolu mooy bi axtaab yi defee seen analyse ñoom dañoo gis ni li borom bi di wax ni moom soxlawul repère yépp teewul am na loo xam ni dana koy xoole ni lii mooy loo xam ni mën na ko tuddee repérage am te mu nekk ci organisme doomu aadama ñu laaj aktaab yi loolu lan la ñu ni loolu mooy imaan waaw ñu ni loolu mooy imaan waaw xad aflahal muminuun ñu ni loolu mooy imaan kon borom bi li mu wax ni soxlawul repère am na lu mu xam ni mënees na ko tuddee repérage mais ci biir organisme doomu aadama mu ni mooy imaanam moo tax yàlla ki muy xool tuddee la jullit ki muy xool tuddee la un vrai croyant mooy ki am imaan te loolu la def ci biir jëmmu doomu aadama loolu la def ci biir jëmmu doomu aadama mu séddale ko nag moom borom bi ci ñaari phase phase bi ci jiitu mooy phase positive bi beneen phase bi ci topp mooy phase négative bi imaan bi mu def ci doomu aadama te mu def ko ci la ñoo tuddee phase positive bi mooy am na nit ñoo xam ni seen imaan seen biir rox la nekk ñooñu bi ñu juddoo gane àdduna ba buñ fiy jóge du ñu mës a weddi yàlla ñooñu bu ñu juddoo gane àdduna ba bën fiy jóge du ñu mës a réeroo ak borom bi ñooñu bu ñu juddoo ba ba ñuy génn àdduna du ñu mës a alko ñooñu yàlla mi ngi insérer seen imaan ci phase positive bi seen rox la ko def léegi nag problème mu imaan bi nga xam ni bés bu ne yaa ngi jàppanteeg moom pour mu bañ la rëcc pour léeg-léeg mu dem léeg-léeg mu dellu si mooy bi mu def ci phase négative bi ci biir xol la ko dugal. ñooñu mën nga am imaan ñaari at at bi ci topp imaan ba dañ wala mu wàcc ba nga duggaat ci loo xamul waaw nga demaat ba yàgg ñu inséré waat ko nga demati ba yàgg mu dañati waaw léeg-léeg nga gis ku ci dema dema dem ba desewul lu dul mu génn àdduna imaan ba rocce ko waaw te yàlla ci organisation boobu mu ni kat imaan bi su ñëwul boo ñëwee yowmal xiyam nee na amoo fi kàddu amoo fi kàddu waaw yawma yaqumu ruuhu wal malaaikatu saffan laa yatakallamuun illa man azina lahu rahmaanu wa xaala sawaaban zalika al yawmu al xaq waaw yàlla nee na imaan boobu su ñëwul nee na boo ñëwee yowmal xiyaam amoo fi kàddu waaw te gis nga ci ni muy bindee doomu aadam mu delloo si loolu moom borom bi ci coobareem kat ci coobareem waaw ci coobareem la ko delloo. jël phase positive muy wàllu rox am na ñoo xam ni ci la def seen imaan ñooñu kenn mënul wax ba nu weddi yàlla wala ba nu alku wala ba nu dellu gannaaw wala jékki saa nu ni seen imaan wàcc na du wàcc waaw ndax rox bi moo koy préserver waaw loolu rox bi moo koy préserver waaye ñi mu ko def ci phase négative bi mooy ci xol bi la ko dugal ci xol bi la ko dugal léegi nag bàyyi xol ba ak imaan bi. bàyyi xol bi ak imaan bi waaw léeg-léeg nit bëgg dara bëgg-bëgg ba dem ba wàññi imaanam waaw da nga koy gis nit koo xam ni bëggul lu dul alal mu toll foo xam ni sax alal ja dana dem ba dootul ragale ci yàlla ndax dañ koy gëmloo ni ko booy dajale xaalis waroo xool lu sell ak lu sellul dajaleel rek su ko defee nag muy dajale ba dajale la mu moomul loolu di wàññi imaanam mu dem mujj na ba gëmatul yàlla waaw waaw nga gis koo xam it dafay bëgg àdduna topp àdduna ba dootul julleeti dootul woorati talatu ko minute bu nekk ma nga fële ca meeting ya ma nga ca politique ba di wut wàllu àdduna ba fàtte ni yàlla moo am priorité ci moom waaw su ko defee kooku it imaanam dem ba wàcc ca xol ba la nekk ca phase négative ba la nekk ca xol ba am ñoo xam ne aussi yàlla jël na seen imaan def ko seen xol mais may na leen ci protection bu tolloog seen xol du bëgg lu dul lu yàlla bëgg ñooñu it ci coono la ñuy ne ndax imaan bu nekk ci xol nga fas yéene ko di sàmm di sàmm di sàmm bay génn àdduna te du dem lu jafe la waaye ñi mu tànn nag jaaree ko ci man yashau def ko ci seen rox ñooñu préserver na leen waaw ñooñu préserver na leen waaw moo tax soo demee ci côté spiritualité dafa ci am ci nitu yàlla yoo xam ni suñ la bëggee defar ñu gis ni li ngay mooy yàlla dafa bare te mooy yàlla bi dina la tee nga àgg ci moom ñooñu seen pouvoir mystique dana leen may nu mën jël sa imaan transféré ko ca xol ba yóbbu ko ca rox ba waaw mais ñu néew lañu nag ñi ko mën barewuñ waaw ndax xuli ruuxu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa xalila waaw waaye ñooñu noonu lañ lay préserver ba sa imaan du wàcc ndax imaan bu dajee lu grave la ci doomu aadama maa ngi koy nettali defe naa ci gàmmu 2022 may wax ni gis nga ki am imaan bis bu ne ñu ni ma ngay dem ca Màkk di jullee ca Kaaba ga ma nga ca Médine ca masjidi rasul ma ngay julli gis nga sawarte bi muy am ak mbégte mi muy am bu demee ca Kaaba ga ca masjidil xaram di julli wala bu demee ca masjidi rasul ca Médine di julli gis nga sawarte bi muy am bis bu imaan bi rocceekoo li muy njëkk regretté mooy temps yi mu passé foofu di fa julli waaw pour wax la ni lu grave la waaw imaan bu nekkee ci yow di fonctionner normalement da ngay sawar ci jaamu yàlla da ngay bëgg lu baax da ngay bëgg yiw da ngay sawar ci lu jëm ci leer da ngay sawar ci lu jëm ci xam-xam bis bu imaan bi redressé woo wala mu rocceeku sa dund yooyu nga passé ci lumière yépp dafay mujj doon ay regret ci yow waaw fu ñu la fekk rek bu ma yëgoon du ma julli ji foofu bu ma yëgoon du ma fa dem bu ma yëgoon nangam nangam su ko defee nag bu imaan bi roccee ko iblis li muy njëkk def mooy moom am na benn intention bi mu amoon ci imaan bi te mënu ci dara imaan bi su dañee dafay am lu mu indi comme zulmaan yu remplacé ko ak place bi imaan bi nekkoon commencé nag di la motiver waaw commencé di la motiver xam nga moo tax nga daan dégg mag ñi ca seen sagesse ndax ñoom ay hakim lañ. da nga daan dégg ca seen jotaay yu tedd yi ñu daan wax ni gis nga boo demul ci altine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni da nga dem ca àllarba firawna waaw ñoom dañ ko daan wax dafa daan jaaxal xale bu xamul nag fi ñuy waxe ñoom dañ daan wax gis nga boo demul ca altine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga dem ca àllarba firawna waaw boobu seen rôle du woon pour wax la ay altine ki ay àllarba dañ la bëgg wax ni nit mënul toog ni jaamootul yàlla ba noppi toog noonu di xoole mënul ne waaw dañuy wax ni imaan bi la daan soññ ci yoonu yàlla ak di la jaamuloo yàlla bis bu imaan boobu dañee mais forcément danañ la fekk ca boîte de nuit ba danañ la fekk ca lu sa yoon nekkul danañ la fekk ca lu yàlla gërëmul waaw mais nag mënoo imaan bi dañ ba noppi nga continuer rek toog noonu normalement mënul ne waaw moo tax boo leen daan laaj ni imaan bi nu may def ba di ko préserver ñu ne ah na ngay jege ku koy suqat waaw na ngay jege ku koy arrosé waaw waaye na ngay dem it ca béréb yañ koy renforcer bañ dem ca béréb yañ koy déstabiliser waaw ndax am na béréb yoo xam ni dañ fay renforcer imaan am na béréb yoo xam ni dañ fay déstabiliser imaan te tant que xàmmewoo ñaari béréb yooyu pour nga préserver sa imaan dafay jafe pour nga préserver ko dafay jafe. xam nga yéen a ngi préparé li ñoo tuddee ziyaara ngeen koy faral dégg dëkk sàngam dañuy def seen ziyaara dañuy dem ziyaari suñu kilifa nangam nangam gis nga ziyaara sens bi dëgg-dëgg tarixa tijaaniya moo ko génne mooy ziyaara ba ñoo tuddee istimdaadiya waaw is ziyaara istimdaadiya mooy pour yokku waaw xam nga waxu nu nga dem ziyaara pour wàññeeku pour yokku waaw yokk bi lan la mooy iman bi nga xam ni amoon na faiblesse ñu renforcer iman bi ba joxaat ko doole waaw ba joxaat ko doole waaw iman bi toogoon tuum ranke arrosé wuñ ko woon mu dem ju arrosé waat ko iman bi gëjoon dégg kàddu yu ko delloo si gën ko dëgëral mu demaat dégg kàddu yu ko delloo si gën ko dëgëral waaw loolu la ñu tuddee ziyaara istimdaadi waaw mais du ziyaara nii pour ziyaara nii rek ni ko nit ñi foogi déedéet waaw du ziyaara nii pour ziyaara nii ni ko nit ñi fooge waaw moo tax bu njëkk ba bu mag ñi daan dégg nga wax maa ngi dem ziyaara lañ lay njëkk laaj mooy kan la ñuy ziyaara ji waaw waxuma dëkk ba dañ lay laaj kan la nga wax leen ñu analyser nit ka ndax mën na yokk nit ñi wala daf leen di wàññi bu dee daf leen di wàññi ñun la jarul dem bu dee daf leen di yokk ñu ni foofu nga mën yokk ko waaw ndax lenn lu ca ne borom bi daf ko séddale waaw te yàlla gis nga la ñoo tuddee justesse am ndax moom moo woote wàllu justesse yàlla waaw yàlla dafa bëgg ñu koy wax moom ku juste la waaw moo tax mu ne alaysa allahu bi ahkamil haakimin waaw gis nga juge yi leen di juger ak seen i dossiers yëpp ñu ni waaw mu ni ndax man yàlla du may le meilleur. may le meilleur man yàlla waaw jékki saa mu ni fa taala allahu malikul xaq waaw est-ce que man du may buur bu véridique bi le roi véridique waaw gis nga moo tax mën na fekk nit fa mu toog jox ko lim koy jox yépp waaw te du ko sonal waaw waaye léeg-léeg it loolu su ko mënee def mu digal la ni la loolu ma war la jox war naa la ko jox mais teg naa ko ci benn loxo nit demal wuti ko foofu waaw loolu juste sam moo tax loolu juste sam moo tax waaw moo tax gis nga volonté su dañee ci nit rek nit ka jeexal na waaw volonté bu dañee ci nit nit ka jeexal na waaw Cheikh waxtaan nañ ci ma ni ko périple méditerranéen bi nga doon def yépp bu ñu xoolee ci xay bu bëgg xam la pourquoi duñ ko xam tax ku dem Tunisie dem Algérie dem fu nekk waaw dem ba Médine waaw te buñ ne sirru ngay jëli sirru bi yow koo ko joxul du ko am waaw mu ni boobu volonté la doon jàngale waaw mu ni boobu volonté la doon jàngale waaw volonté la doon jàngale waaw parce que gis nga volonté nee na dafa bokk ci loo xam ni bu imaan saxee di garab gu ndaw. volonté dafa bokk ci li nga xam ni dafa mel na chaque jour yaa ngi nemmeeku garab gi di ko arrosé pour garab gi gën a màgg waaye mu ni bu imaan saxee ci xol it di garab gu ndaw manque de volonté dafa bokk ci loo xam ni mooy garab gu ndaw góor ji rek roose woo ko demoo seeti ndax bëy yi jaar nañ fa di ko lekk toppatoo woo ko gis nga garab ga soo ñëwee ay at da ngay fekk wow na nee na manque de volonté noonu lay def ci imaan waaw kon gis nga imaan dëgg volonté moo koy suuqat waaw te gis nga ñoom ñoo ñoo tuddee les aristocrates du ciel xam nga wàllu aristocratie céleste même ñu tuddee seen bopp les philosophes nga xam ni philosophie spirituelle moo tax may wax amuñu accès foofu parce que aristocratie céleste ñi ko maîtriser dëgg dañu lay wax ni gis nga yàlla amul problème ak benn mbindeef nga ni non pourtant nee na xaw ma na ngeen def nii su ngeen deful nii ëllëg dinaa leen dugal safara bu ngeen defee nii naa leen yóbbu àjjana ñu ne amul problème ak benn mbindeef xam nga lu mu bëgg mooy nga fexe ba looy def nga def ko ci turam waaw waaw kon yàlla li mu bañ mooy li mystique yi jàngale woon ca wala dikrullahi akbar waaw li ñu jàngale woon ni yàlla li muy bañ mooy ku ko fàtte dafa bëgg chaque fois ngay nekk en connexion permanente ak moom waaw waaw connexion permanente nag la wax mooy chaque fois chaque instant nga connecté ak borom bi doo ko fàtte benn yoon ñu ni ku def loolu yàlla du am ak yow benn problème waaye li muy bañ daal mooy ku ko fàtte waaw moo tax ñoom dañuy wax ni amul ak problème benn mbindeef moom lu mu bëgg looy def rek def ko ci turam. moom li mu bëgg looy def rek def ko ci turam su ko defee boo ko defee ci turam rek waaw boo ko defee ci turam rek daal di noppalu waaw parce que moom borom bi moo bëgg loolu waaw mooy nga def ko ci turam waaw te itam borom bi subhanahu wa taala ki mu mën a dimbali ba préserver la sa iman dëgg mooy ki nga xam ni fexe na fexe na moom ba du lor moroomub jullitam waaw booy lor say moroomub jullit rek borom bi bu la bëggoon préserver sa iman dafa naan ah pouvoir ak capacité bi nga am ba mën dem di lor mbindeef yi fexeel am loolu ba mën garder sa iman ba ñëw ci man ah comme mën nga dem di lori mbindeef yi kay dafay wax kon kay iman bi mi ngi sa xol léegi garder ko te bis bu seetaanee iman bi iblis am na doole bu tolloog chaque jour dana xëy jam ci dara xool waaw fan la toll waaw fan la toll voltage bi fan la toll gis nga soo jëlee électricien yu mel ni ñoom almaami nii nii ñuy faral di def léeg-léeg seen testeurs yi xam nga da ngay gis ñu dem ba yàgg dugal ko fenn ci prise xool génn ni ah deux cent vingt ñu gisaa génn ni deux cent trente trois waaw génn ni bii moom am na doole deux cent quarante cinq Iblis noonu lay def ci imaanu jullit waaw bu la jegee chaque jour rek day jël testeur bi xool waaw léeg-léeg mu fekk deux cent vingt bu ne ah tey baaxul ndax kii normal na waaw léegi sax xool ni deux cent quarante cinq ah kii kenn mëntu ko yàq waaw gisee deux cent cinquante wala trois cent nag mu ni kii rëcc na ma waaw waaye bu xoolee gis cent cent dix dellu si gannaaw suba gis soixante dix léeg-léeg mu gis cinq léeg-léeg mu dem gis zéro mu ni sama waa jàngi ni waaw dootul tàggali koog yow mu. moo tax Cheikh ni woon li may njëkk fexe ci ku ma déggal mooy ma fexe ba Iblis bu mu am accès ci sama njaboot wax na dëgg parce que koo xam ne bis bu ne mi ngi yore benn testeur di tester sa iman te yow gisoo testeur ba yëgoo ko xamoo ci dara waaw ndax yëg na ni iman bi su wàccee wàcc wàcc wàcc ba tollu fenn fi rek mën na manipuler nit ki waaw xam nga iman bu dëgër Iblis du mën a manipuler borom. mais su demee ba yëg ni imaan bi wàcc na ba am fu mu toll rek dafa naan ah ki ma mënul woon manipuler nag léegi nekk na ci sama loxo waaw mën naa ko manipuler te ki mu gën a soxla moom iblis du taalibe biy dem yor kurusam rek di jaabante wala ki dem jumaaje yore kurusam di julli yoonam nekk fa xam nga iblis ko mu soxla ki nekk ca kanamu jumaaje bu dee mbooloo ma sëriñ ba ca kanam waaw bu dee ki diriger mouvement ba président mouvement ba la soxla. parce que dafay wax ni su kenn juumee du am benn problème mais ki jiite mbooloo mu bari boo ko dëngalee ñëpp dëng waaw loolu lay wax boo ko abattre rek jeex na wata bu ñemee sëriñ ba ca kanamu mbooloom bu ñëwee moom lay dem tester imaanam di xool waaw bu gisee ni mi ngi wàcc rek mu commencé ko wax loo nag lu wax lu waxuwul nag waaw su ko defee nag ngay wax rek waaw ba yàgg ngay jëf rek gaa yi topp sa nag waaw naan nii la fekk moom la waaw loolu la soxla. wata mës naa leen ko wax defe naa 2013 la woon ca gàmmu ga bi ma leen di wax gis nga bi Iblis fekkee téeméeri nit daje nekk ca jàkka ja ñii di julli ñii di jaamu yàlla waaw ña ngay naafi la mu xool fële gis benn borom xam-xam bu ragal yàlla borom xam-xam baa nga tëdd di dallu ni day nelaw mu yore uppukaay di ko upp waaw mbokk yi ñëw ni ko yow Iblis ki ngay upp te mi ngi nelaw doo dem yàqal ñële di julli. mu ni gis nga kii bu yeewoo rek julli ñuy defaru waaw waaw ñii lu ñuy julli xamuñu ko sax waaw waaye kee bu yeewoo julli ñuy defaru waaw kon mu ma bañ mu yeewu moo ma gënal pour ma mën a yàqal ni ñu ni ko lu tax mu ni xaaral dem jël benn xooxu siddéem dem ca ñu julli ba sëlmal li leen yàlla mën na dugal àdduna ci xooxu siddéem bi waaw gaa ñu ni ko yow bu nu foon doo xooxu siddéem nu mu tuutee kii naan ko man sama kër gi sax dafa xëcc ci xooxu siddéem nga naan yàlla dugal ci àdduna mu ree waaw yee boroom xam-xam ba ni ko xooxu si dem bi yàlla mën na ci dugal àdduna waaw mu ni ko innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun waaw su neexee yàlla mu dugal ko ci doo xam ndax mi ngi ci biir nag mais mi ngi ci biir waaw mu ni ko moo tax may bañ ngay yeewu waaw waaw ni ko ndax yow boo yeewoo rek su ko defee nit ñi jóg waaw pour wax la ni gis nga moom fu mu teg wàllu science waaw fu mu teg wàllu science moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni xam-xam jar na jamono jooju bu ñu tuddee Chine sore waaye moo taxoon nuy wax waaw nga dem ba Chine wuti ko waaw mais xam-xam bi mu doon wax moom yonent bi mooy xam-xamu lumière buy préserver iman waaw ñu bari nag loolu la ñu xamul pour ñoom mooy texte yi nii nii nii rek waaw xam-xamu lumière buy préserver iman moom la yonent bi doon wax ni boo ko amul fii jar na dem ba Chine nga wuti ko kon yàlla na yàlla yàgg di ñu préserver sunu iman ak njaboot gi yépp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh